sayidina muhammadin wal aali wa saxbihi dawi nawaali lwaali wa radiyallahu an sheykhina wa wasilatina ahmad ibni muhammad ibni habibillah xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa saxbihi wa sallam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki taalibe yi bokki jullit yi ñu teew ci barab bi di jàkkaarloog suñu jëmm di dégg suñu kàddu ak ñi nga xam ne ñi ngi ñuy topp ak fuñ ñu mën a toppee ci xarala yu bees yi ñu ngi leen di nuyu ci baat yooyu ñu lislaam tànnal di am mbégte bu baax ci dellusiwaat ak ànd ak yéen ci jataay yu am solo yi nga xam ne daairatu muxaddamatul xidma mi ngi koy taxawal fii ci jumaay sëriñ Tuubaa mu baax mi di jotaay xam-xam yoo xam ne yu am solo la tey nag ci xaaj yi ñu séddale waxtaan yi tomb bi ñu def muy waxtaan lay nekk muy tànn ci yenn ci tomb yi nga xam ne yu yitteel la ñu jox ko boroom xam-xam bu rafetle ab xam-xam mu def ci ay gëstu ñëw seddoo ko ak bokk yi nga xamante ne ñooy topp waxtaan wi tomb yi ñu tànn yépp am solo nit ki ngeen koo xamee ndax yéen a ngi topp waxtaan wi tey tomb bi ñu jël dafa laal lu jëm ci suñu dund ruux ndax topp ngeen fi ay tomb yoo xamante ne day wax ci sunuy jëflante diggante lu mel ne jaay jënd ci lu mel ne sëy ak yu ci aju yooyu lu jëm ci dundu courant gii la nga xamante ne mooy ni ñuy jëflante ci sunu biir ak yooyu aju tey nag xaaj bi ñu jël ci jëflante gi jëflante nit ki di jëflante mooy day jëflante digganteem ak nit ñi waaye day jëflante digganteem ak boroomam digganteem ak boroomam ay xaaj bi ñu yal ci diggante nit ki ak nu muy def ba wàccook jëflante bi mu jëflanteek boroomam nu mu koy rafetalee noonu lañu moom lañuy ñuy jàngat nit ki ñaar yooyu rek la seddalikoo mooy yaramam ak ruuxam yaramam dañ ko war a tàggat yar ko jubbanti ko làddanti ko ba mu mën a nekk nit ku mat koo xamante ne li muy jànkonteel ci li muy taseel ci dund gi dana am kàttanuk man-manuk yaram bu mu mën a jëflanteeg loola waaye noonu lañ ko war a tàggatee itam ci beneen pàcc bi mooy tàggat ruuxam yar ko sellal ko jaarale ko ci aw yoon ba mën a dellu fa nga xam ne fa la jóge woon te mooy te mooy mooy ca aljanna ndax yàlla da ko bind ci anam wi gën a rafet la laqad xalaqna al insaana fii ahsani taqwim waaye bu ñu ko bëggee musal ci li ci topp nag mooy su ma raddanaahu asfala saafiliin faw rek dañuy defar ruuxam tey ci tom boobu mooy at tarbiyatu ruuxiya inda cheikhil xadim ni ko Sëriñ Tuubaa nag jàngalee ak ni mu ko doon defee moom la war a ànd ak sëriñ Aafiya Ahmadu Ñang mel ne ku ngeen miin la lool ci jotaay daanaka du jar du jar du jar xamle moom ku mat a topp ci tomb bii la ndax ba mu jàngee ba noppi li ëpp ci ab gëstooma ak kub yëngatoom da ko jëme ci Sëñ Tuubaa ak yoonam wii Sëñ Tuubaa ak wooteem bii kon ku ci am ak xam gu dëggu la boo xamante ne buñ ko toppee ci waxtaan wi dan danañ ci jariñoo lu kawe sunu njort kon dañuy bàyyi sëriñ Afiya mu ñëwal leen ci tomb bi te leeral leen nan la Sëñ Tuubaa doon yaree doon yaree ruux yi nga xamante ne ñoo ñëwoon wommatu ci moom nan la leen doon yaree nan la leen doon tàggatee ba ñu yéeg wala ba ñu yegg ci seen borom jox leen waajtaay yi ñu yi ñu soxlawoo sëriñ Afia bismillah yàlla na saa borom gën a leeral làmmiñ wi ba nga jotal li nga bëgg jotal ni nga ko bëgg a jotalee ñun itam ñu dégg ko déggeen wu gën a rafet te topp ko bismillah fal yatafaddal mashkuran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 maa ngi leen di nuyu ci nuyoo islaam bu tedd bii yéen ñi bokkal jataay bi cib teewaay ak ñi koy topp ci ay jumtukaay di ndokkeel ak a nuyu waa daairatu muqaddamatul xidma ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee saa su nekk rawatina ci weeru koor gi di ko dundal ci ay jataay yuy dundal ruux di yokku ak xam di ñaanal suñu kilifa gu mag gi Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla yàggal ko ci suñ kanam te gën koo kàttanal bam yóbbu yan bi fu kawe njot te ñu ànd kook moom di sant yàlla bu baax a baax eh, di ko dollee ñaan mu dolli ñu jàmm ci suñu réew mi ak ci mboolem réewi jullit yi di ndokkeel jullit ñépp ci weeru koor gi rawatina ci fukki fan yi ci mujj nekk yi ci am solo lool nga xam ne ci lañu gën a yaakaara dajeek laylatul qadr ni ko sëriñ Moustapha waxee tomb bii ñu bëgg a waxtaane tey mooy yar ruux ni ko sëriñ bi Cheikhul Xadim radiallahu anhu daa defe muy tomb boo xam ne waxtaane nañ ko fii ay yoon ci jataay yii ci ay tur yu wuute waxtaane nañ fi al iraada waxtaane nañ fi at tasawuf lu ci ne ab tomb la buñ mës a waxtaane fii ci jataay bii tey ñu tànn ak tarbiyatu ruuxiya yooyu yépp nag ay tur la yu bokk lu ñuy tegtale buñ ne at tarbiya tarbiya ruuxiya moom moom la boroom xam-xam yu bari ci jamono jii nga xam ne dañuy moytoo tudd baatu tasawuf te xam ne mënta ñàkk ci diine ji ñu bëgg a wut yeneen tur yuñ koy tuddee di wax atarbiyatu ruuxiya mbaa tazkiyatu nafs mbaa yu deme noonu waaye mooy lañ xamoon rekk di ko di ko tuddee tasawuf mbaa ñu koy tuddee al tariqa mbaa ñu koy tuddee al iraada yooyu yépp ay tur yoo xam ne ñoo bokk lu ñuy tegtale waxtaan wi nag dana am ab muqaddima ab ubbi ci lislaam ci boppam ak i xaajam ab muqaddima ci islaam ak i xaajam ak tasawuf ci boppam ci tënk ak nag jëmmi tomb bi ñuy waxtaane mooy tarbiya ci boppam lu muy tekki tarbiya ruuxiya mooy lan ak bu dee sëriñ bi moom num ko dégge ak san solo la ko jox ci booteem loolu lépp mën nañoo yaax ne ab muqaddima lay doon donte niru na lu gudd waaye lu mënta ñàkkale ci waxtaan wi ngir mu gën a leer dëgg-dëggi xolu waxtaan wi nag mooy jëmmi yar ruux googu ban wàccuwaay maanaam lu mu doon ci biir yoonu tasawuf ban xaaj la ci ak lan mooy ay cosaanam ak lan mooy jumtukaay yi nga xam ne moom lañ jëfandikoo ngir sottal ko loolu lépp ci ñu ko sëriñ bi gisee moom tomb ba ca mujj nag mooy sëriñ bi ginnaaw tarbiyatu ruuxiya da ko fee fekkoon bi mu dikkee mu am ciw gisiin am ciw doxiin lan moo ràññale aw gisiinam ak doxiinam ak yeneen gisiin yi ak yeneen doxin yi kon yooyu daal mooy tomb yi nga xam ne ci lañu fas yéene tënk waxtaan wi xam naa bu ci nekk dañ koy fexe tënk rekk ndax mën a sàmmonteeg waxtu wi ngir dugg ci biir waxtaan wi lislaam ji nga xam ne lépp lu baax lu ñuy waxtaane ci la dugg mooy diine yàlla ji nga xam ne moom la mooy jenn diine ji nga xam ne mooy diine ji mu nangu te ku mu mës yónni diine jooju la la yónni woon mooy diine yi wéetal yàlla ak jaamu ko te bañ koo bokkaaleeg dara bañ koo euh, nirooleeg dara te jaamoo ko ni mu la ko sante te def ko ngir jëmmam te sellal ko tënk sag dund ci yoon wi mu la ko rëddale loolu mooy diine jooju nga xam ne naka jekk ku yàlla ma sa yónni diine jooju la yónni suñ boroom mi ngi wax ne sharaa lakum min addiini maa wassay bihi nuuxan walladi awxaynaa ilayk ba àgg ca aaya ba mooy diine ji la yàlla yónni woon nuux moom la yónni woon Seydina Muhammad yónni ko Seydina Ibrahim yónni ko Seydina Moussa ak Seydina Isa ñoom ñëpp mu ne leen an aqimu diina wala tatafarraqu fii yéen ñëpp na taxawal diine ji di lislaam te bu leen ci wute diine jooju nag di lislaam ñetti xaaj la mooy lu ñuy fas cib xol pas-pas buy na ci xol ak jëf yu ñuy jëf ci ay cër ñu di ko gis ak di ko wax ak melokaan wu ñuy mel mooy li bi wax ne aqsaamu diini rabbina al imaanu wa baadahu al islaamu wal ixsaanu yonent bi sallallahu alayhi ci xadiisu jibril bu siiw ba bam ko laajee luy lislaam mu wax ko ko mu ne ko luy liimaan mu wax ko ko mu ne ko luy lixsaan mu wax ko ko mu laaj ko kañ la saa di taxaw mu ne ko tanewuma la ci mu ne ko lan mooy ay màndarga mu wax ko ca ay màndarga ba mu jógee dem def ne kooku mooy jibril daa dikkoon di leen xamal seen mbirum diine ñu gis na kon ñett yooyu mooy xaaj diine yi bu ñu ko sukkandikoo ci xadis boobu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu wax bu ñuy jàngalee imaan lañuy ñuy jëkk a wax teg ci islaam doora ñëw ci lixsaan waaye buñ dee jëf lislaam lañuy jëkke nit ki day njëkk dugg ci lislaam door a góorgóorlu ci ngëm ngir matal ko door a yegg ci lixsaan liimaan nag ay ponkam juróom-benn la ni ñu ko xamee mooy gëm jëmmi yàlla ji ak la ca aju gëm malaaka yi gëm téere yi yàlla wàcc ci yonent yi gëm yonent yi ci seen bopp gëm bis bu mujj ba gëm ne lépp lu am yàlla moo ko dogal muy lu neex muy lu naqari muy lu baax muy lu bon loolu mooy ponki gëm ponk lislaam juróom la bu ñu waxee ponk mooy li ëpp solo ci mbir mi nga xam ne bu doon ab tabax mooy euh, keno ya ko téye bu dee lislaam te mooy jëf jëf yu baax yi jëf yi ñuy jëf ci ay cër te wax ci la bokk ponk lislaam mooy nga seede ci sa nga gëm ci sa xol seede ci sa làmmiñ ne amul benn buur bu ñuy jaamu tam yeyoo ko bu ñu war a jaamu tam yeyoo ko ku dul yàlla sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko yónni ngay julli julli juróom woor weeru koor joxe asaka bu la waree aj màkka soo ko mënee loolu mooy ponk lislaam lenn lu ci nekk bi ñu ko laajee yonent ponk yee tudd na ko bi ñëwee ci ponk bu mujj bi nag muy rafetal bi ñu ko ko laajee daf ne mooy ngay jaamu yàlla mooy boo dee jaamu yàlla nga mel ni yaa ngi gis yàlla mi ngay jàmm yaa ngi jàkkaarloog jëmmam te nga xam ne soo mënta gis jëmmam it boo nekkul di gis jëmmam it moom mi ngi lay gis an taabudallaha ka annaka tarah in lam takun taraahu fa innahu yaraak waaye tuddalu ko ay ponk lexsaan mu di rafetal tuddalu ko ay ponk waaye boroom xam-xam yi lii yonent bi sas leeral xaaj yi mu leeral muy liimaan am na boroom xam-xam yoo xam ne gëstu nañ ci xam-xam boobu ba leeral ko ñu tuddee xam-xam boobu tawxiid xeeti jëf yi ñu jëf ci ay cër yépp ci ay jaamu yàlla ak i jëflante ay boroomi xam-xam gëstu nañ ci ba leeral yoon woowee seen xam-xam boobee la ñuy tuddee fiq xaajub ñetteel bi it am na boroomi xam-xam yu ci gëstu maanaam melo woowu yonent bi wax gëstu nañu wan yoon la nit war a jaar ba yeggale ko ci melo woowu am na borom xam yu ci gëstu ba xàll ci aw yoon xam-xam boobee ñu xàll ak doxin wañ ca gis moo tudd tasawuf ñoom nag ginnaaw yonent bi sa alayhi waxut ay ponkam ñoom ñooy jéem a gëstu yoon wi ak xam-xam bi ya ca ëpp solo ñu di ko tuddee ay ponk kenn ku nekk ci ñoom lala sab di gëstu jox ca nga sukkandiku ba wax ne ponk ya lii la moo tax ponki tasawuf dañ ciy wuute boo demee Cheikh Abdul Xaadir Jilaani eh, juróom-ñetti ponk la wax bu ñu demee ci Munawiru Sudur suñ baa ngi ko fay leeral boo demee ci Masaalikul Jinaan juróom-ñaar la fa wax waaye nee na yadaal yi dolli na ci benn mu juróom-ñett waaye nag am na ponk yoo xam ne ñoom ñépp a ci daje kenn ñàkk koo limaale muy ñeenti ponk mooy nga xam ne kon mën nañu jàpp ne moom euh, ponk la yu ñu dëppoo amutu wuute mooy arkaanu bayti jamil qawmi arbaatun biha yu assasu bunyaanul wilayaati sumtun wa juun tawilun baadahu wa uzlatun an bil ishaaraati mooy xiif bu metti ak noppi gu sax ci lépp lu amul njariñ ak di ñàkk nelaw rawatina guddi euh, ak beru te mooy wéet euh, yooyu mooy ponk yi nga xam ñoom ñépp dëppoo nañ ci ci ne mooy ponk yi euh, mooy ponk yi tasawuf kon loolu ab loolu euh, ab ubbi la léegi nag tasawuf moomu nag bu ñu ko dee xool te sukkandikoo ko ci njàngaleem sëy Tuuba radiyallahu taala anhu dañu naan dafa am aw yoon maanaam xam nga tasawuf moom dañu jàpp ne kuy dox aw aw yoon la wu ñuy dox ngir dem ca yàlla ngir àgg ca yàlla <coughs> kuy dem jëm ci bara jëm fenn nag danga am aw xàll wooy jaar danga am nooy doxe ca xàll wa danga am lu la yóbbu mbaa ku la yóbbu loolu nag lañu sëriñ bi jàngal di wax ne man talabal wusula lil jalili falyaatasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutian laa yamiil fi zahirin wa batinin an ilsabil yaquuduhu bililmi walibada kama yurabbihi bi tarkil aada ku bëgg a àgg ci yàlla am na yoon woo war a jaar aw xàll wu kenn mënta jaar feneen ba àgg ci yàlla wudul moom mooy sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa falyantasim bi sunnati rasuli mooy lislaam diine ji yonent bi jàngale diine ji nga xam moom la yàlla yónni yonent bi wàcce alquran ngir mu tënk ko yonent bi leeral ko ci ay waxam ak i jëfam maanaam ci sunnaam yoon wu leer naññ woowee te wér la ñuy tuddee sunna moom lañuy ñuy tuddee it sharia xàll wi kon xàll wi mooy yoon mooy sunna si bi te mooy tënku ci diine mooy liimaan ak lislaam ak lixsaan yooyu mooy yoon wi nga xam ne ku jëm ci yàlla mënoo ko mënoo jaar feneen fudul dul ci ci yooyu ñu wax noonu <coughs> euh, moo tax mu ne fa yaatasim bi sunnati rasuul yi kon loolu mooy xàll wi euh, ki lay yóbbu mooy ki xam yoon wi mas caa jaar ba yegg ca dëkk ba mooy ku jaar ci yoonu yàlla ba àgg ci yàlla kooku mooy ki la mën a yóbbu fa man taallaqa bi waasilin wasal wa man taallaqa bi aksihin fasal mooy bi an yulaazima mutian la yamiil an zahirin wa batinin an sabil kon mooy ki yóbbu kooku mooy koo xam ne xam na diine ji lépp nañ ko war a xame jëfe ko nañ ko war a jëfee boole li ñuy tuddee sharia te mooy diine wàllu gi féete kaw ci diine ak xaqiiqa mooy wàllu ga féete biir ci diine li xol li cër yi féetewu mooy sharia li xol bi féetewu mooy xaqiqa koo xam ne ñaar yépp xam na la ca aju lépp jëfe ko ba mat wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa allazi xoqa lahu an yuttaba koo xam ne boole na sharia ak xaqiqa ci xam akuk jëfe moo tax mu ne bi an yulaazima mutina laa yamil an zahirin mooy sharia wa batinin mooy xaqiiqa nga xam ne du jàng du jàdd ci du jàdd dara ci sharia du jàdd dara ci xaqiiqa nga am ku noonu mooy ki la mën a yóbbu ba nga àgg nit ñi doxee nag ci yoon wi doxin wi mooy kun mu'minan wa musliman wa muhsina in rumta sayran li ilaahi toxsinaa da ngay dox da ngay góorgóorlu saa su nekk ci luy matal sa ngëm di góorgóorlu saa su nekk ci luy matal sa topp yàlla sa wommatu ci yoonu yàlla sa jëmm nga tënk ko ci yoonu yàlla di góorgóorlu saa su nekk ci nu sa ngëm di mate nu muy rafete ak nu sa e, topp yàlla di mën a mate kon rafetal daa day delluwaat du xaaj bu beru waaye moom bu beroo itam day beru ci xel nii rek ci wax nii rek ngir mën a jàngale waaye rafetal moom pas-pas nga koy def mbaa ay jëf waaye lu ñuy lu ñuy def la ñuy rafetal waaye kenn du jekki kay rafetal te defoo dara kon rafetal mi ngi aju ci ci ci ci liimaan ak ci lislaam bu ko defee nag doxin woowu daa am ay cosaan daa am ñetti mbir yu ko tënk mooy dangay xam li nga war a xam di jëf li nga war a jëf mel ni nga war a mel xam li nga war a xel moom mooy al ilmu di jëf li nga war a jëf mooy al amalu saalix mel ni nga war a mel mooy al adab al mardi moo tax mu ne bi an yu laa moo tax mu ne yaquuduhu bil ilmi wal ibaada kama yurabbihi bi tarkil aada kon foofu a tarbiyatu ruux ya moo yar ruux ab xaaj la ci ñetti ponk yi nga xam ne kuy dox jëm ci yàlla mënoo ko ñàkk mooy ñu yar la yar la ndax dañ lay xamal yar la yéege la moo tax yoon wi ñetti siifo la mooy tarbiya mooy mooy taalim ak tarbiya ak tarqiya dañ lay xamal yar la yéege la kon yar la mooy xaaj mooy siifo bi ci digg bi atarbiyatu ruuxiya kon mooy al marxalatul wusta min maraxili sayri althalaasi ilallaahi taala kon nit ki dañ koy xamal jëkk yar ko ñaar yéege ko ñett mu door a yegg ci yàlla kon bu ñu waxee atarbiyatu ruuxiya kon mooy yar nit waajal ko ngir mu mën a yéeg yàlla dafa kawe dafa sell dafa màgg dafa rafet kenn du dem ci moom te waajoo ba jekk maanaam ñu sang la ba nga set solal la ba nga jekk ñu euh, tàggat la ba nga xam nooy nekk boo nooy nooy deme ci moom ak noo fay nekke boo eggee loolu mooy e, tarbiyatu ruuxiya kon buñ ko bëggee xam xamle rek tarbiya ci boppam rek te mooy yar rek yar rek mooy defar defar nit defar nit ki sàmm ko ba mu ñoŋ sàmm jëmmam sàmm bakkanam sàmm xelam sàmm ruuxam ba mu ñoŋ waaye li yàlla def ci moom ci ay man-man man-mani yaram ak yooyu xel ak yooyu ruux yokk ko yokk ko yokk ko ba mu àgg fa gën a kawe cig mat waaye di ko jubbanti ci biir ak màggam saa yu demee ba war a dëng ci fenn ñu jubbanti ko foofa ba nga xam ne yoon wi mu war a jaar ci màgg ca lay jaar ba àgg fa mu war a àgg loolu mooy yar ci buñ ko tënkee nga xam ne kon yar lépp a ngi ci dañu yar jëmm di yar ruux te mooy ñaar yi nga xam ne mooy nit am na ñoo xam ne jëmm rekk lañuy yar ak luy dimbale jëmm ngir mu man fee nekk mooy niti zaahir yi dañuy yar yaram bi ak xel mi kon dañuy tàggat yaram dañuy yar yaram jàngal ko li mu war a man ci lu koy taxa a mën a dund jàngal ko it am xelam ñu yar am xelam maanaam def jàngal ko xam-xam bu koy tax a a dund loolu lépp nag ci àdduna kon lépp ci ci yaram lay dellusiwaat waaye lu jëm ci wàllu ruux ñoom jàpp nañ seen yoon nekku ca am ñoo xam ne dañoo jàpp ne ruux mooy la solo ndax mooy cosaan la jóge ca yàlla dikkoon sol mbubbum yaram dana dem ba summiwaat ko Euh, delluwaat ci boroomam euh, ginnaaw bu mu solaat ko dëkk ajjana maa mu dëkk feneen kon ñu ne ruu mooy li ëpp solo mi ngi mel ne wurus ak mbuus ma ñu ko def yaram bi mooy mbuus mi ruu gi mooy wurus wi ñuy denc kon yaram wi ruu gi moo ëpp solo moo tax ñoom bu ñu yar dañuy jàpp ne ruu ëpp solo moom rekk lañuy yar ci anam gi ko tasawuf <coughs> jàngle loolu am na ñoo xam noonu lañ gisee bu dee sëriñ Touba nag radiyallahu anhu daa jàpp ne mënee su leen a teqale kenn mënta teqale ruux ak yaram ruux ci biir yaram lay nekk yaram ruux moo koy dundal kon ñaari yar yi mënee su ko teqale faaw nga boole lépp yarandoo ko mu gis ne nit ruux la ak yaram yaram ci suuf sii la jógee moom la yàlla tabax muy jëmm mu ëf ci ak ruux ruux nag ca yàlla la jóge dig leer baa muy secret daal mbóot moo xam ne yàlla xam lu mu doon bi mu pabee ruux def ci yaram am na soppiku ko am ci yaram mooy tax na yaram dund tax na yaram am ay yëg-yëg muy bànneex ak di bëgg lu koy taxa luy dundal boppam luy dundal yaram wi ci la nit ci la jëmm ji ame lu ñu tuddee bàkkan muy annafs nga xam ne bakkan mooy taxawu yaram di ko laajal ay soxlaam ay yitteem moo koy laajal di ko ngir mu lekk di ak naan bànneexu sëy bànneexub nelaw bànneexub wax jaxasoo ak lépp loo xam ne rek bànneexub daraja bànneexub bëgg alal bëgg ay doom ay soxna ak yépp loo xam ne ay luy dellu la rek ci ci àdduna ji ci dunduk àdduna gi bakkan moo koy laajal moo koy laajal yaram kon mooy ki koy taxaw mooy muhaamim waaye ruux bàyyi ko ci yàlla di lu sell bi mu ñëwee ci yaram jural na ko bi duggee ci biir yaram jural na ko ak fàtte lam xamoon démb muy xamoon boroomam jural na ko mu fàtte ko jural na ko ak taq jural na ko ab diisaay loolu jural na ko ko mu war a bëgga mel na bëgg a delluwaat ca na meloon waaye xel moo koy taxawu di ko laajal lim soxla moom itam euh, kon foofu noonu la gise ne noonu la nit mel bu ko defee nag nit ki war a góorgóorlu ñu war a yar aw yaramam tàggat ko war a yar ak ruuxam euh, bakkanam not ko ba nga xam ne yaram ak bakkan duñu faagaagal ruux war a yar xel ba muy wan ruux ba muy wan nit yoon wi war a jaar ba ak ruuxam dund yar xel war a yar itam ruux ba mën a góorgóorlu ci mat ak kàttan ba mën a delluwaat ci boroomam loolu lépp lay tënk ne wa aqlaka jaal qaida al hawa wala taakis fa taxwi gadabal mawla ala falmuminu alladi ila mawlaahu yaquudu zal inqaadi laa hawaahu tuuba liman yaquuduhu xijaahu duuna hawaahu lirda mawlaahu kon philosophe bi ma tënk léegi ba ñetti bay yi tënk na ko mu ne na nga fexe ba sam xel na jiite sa bakkan sam xel na jiite sa bakkan di ko wommat di ko jëme ci sa boroom te bul sàggan ba sa bakkan jiite sam xel di la wommat di la jëme ci alko loolu mooy li suñu boroom di wax ci alquran euh, wa nafsin wa sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dassaaha ak di wax ne fa amma man taxa wa aatara alxayaata addunia fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawe fa inna aljannata hiya almawe kon loolu moo tënk gisiinu sëriñ bi ci wàllu yar mooy kon yar ruux teqaliwu ko ak yar yeneen xaaji yar yi ci des maanaam boo yar ruux da yaraale yaram yaraale bakkan yaraale xel yara sa ru sa yarug ruux dooga mat kon moom loolu mooy gisiinam ci wàllu yar bu ko defee nag <coughs> kon wax nañu ne yar moomu mooy benn xaaj la ci ñetti xaaj yi nit ki aajowoo bu bëggee àgg ci yàlla loolu nag te mooy xam ak jëf ak mel ak ak mel ni ñu war a mel xam li ñu war a xam ji jëf li ñu war jëf te mel ni ñu war a mel al ilmu naafi wal amalu saalih wal adab al mardi mooy xaaj xaaji kon al adabul mardi te mooy mel ni ñu war a mel balaa mën a nekk day am fu ñuy jaarale nit ki mooy dañuy koy dañ koy yar dañ koy yar yar boobu nag ci ni nga xam nit yàlla yépp dëppoo woon nañ ci rëddoon yoon wi sëriñ bi dikk ànd ak ñoom ca woowa yoon yar boobu ñetti cosaan la am mooy jihaadu nafsi mooy yar bakkan not bakkan ak laabal ab xol Euh, te mooy génne ci lépp lu lu di safaan labal bakkan ak cër ci lépp lu di safaan ak taaral ko maanaam waajal ko def ci moom xeeti ngëneel yi yépp ngëneel yi melokaan yu rafet yépp ci ay jikko ak i teggin euh, ak i melokaan yu rafet yépp nga def ko ci moom kon mooy jihaadu nafsi ak taxliyatu ak taxliya loolu mooy ñetti cosaan ñetti xaaj yi nga xam ne moo tënk yarub ruux moo tax ci téere bi nga xam ne ci lañu sukkandiku ci wàll googu tam tënk yoon wi muy masaalikul jinaan da caa tënk doxiin wi ñuy dox jëm ci yàlla te mooy xam-xam ak jëf ju baax ak yar boo demee ca muqaddima bi ilmu la ca wax ak amal waaye nag la tax téere bi jóg dëgg-dëgg mooy tarbiya moom la wutal ay bunt ñetti bunt bunt bu njëkk bi jëm ci jihaadu nafs bu ñaar bi jëm ci taxliya bu ñetteel ba jëm ci taxliya loolu mooy xaaji yar mooy not bakkanum nit ki setal ab xolam ci mboolem jàngoro yu xol yi setal bakkanam ci mboolem ayib yi waaye def ci moom mboolem meloy xol yu rafet yi ak melo yi jëmm yu rafet yi kon loolu mooy yi yar loolu nag ngir def ko sëriñ bi moom fekkoon na boroom xam-xam yi tënk ci aw yoon woo xam ne ànd na ci ak ñoom waaye nag da ca jëfandikoo gisiinu boppam ak maniinu boppam xam nga dañu ne yar maanaam yar yar ruux farata la lu mënta ñàkk la ndax maanaam bu ñu bakkanu damaat bu ñu ko defarut nit ki du mën a texe qad aflaha man zakkaha bu ñu ko defarut borom maanaam borom du mën a du mën a du mën a du mën a texe yawma laa yanfau maalun wala banuuna illa man atallaha bi qalbin salim kon defar ab xol ak yar bakkan daa nekk lu mënta ñàkk farata la moo taxoon sëriñ bi wax ne xasaali nee na tasawuf xam ko xam ca loo defaroo loo yare sa bakkan defare ca sab xol ak say jikko xam ko ca jëfe man ko ca def ko ca lu mënta ñàkk la ama tasawufu fa fardu ayni la dal xasaali yi bi dooni may ni faw nga xam yoon wi nga war a jaar ba not sa bakkan fexe it ba jaar ca ba not sa bakkan faw nga xam yoon wi nga war a jaar ba defar sab xol euh, boo jaar ca it ba xol ba defaru loolu mënta ñàkk bu ko nit ki defut du mën a texe bu ëllëgee kon loolu de lu mënta ñàkk moo tax ñu jàpp ne farata moo tax sëriñ bi di wax ne walistigaalu bi dawaa'iha abad min baadi maarifatiha fardan yuat wa huwa min aczami ma abdun bihi raama iqtiraaba rabbihi fantabihi fexe ba xam yoon wi ngay jaar ba defar sa ruux ak sa xol ak sa bakkan fexe ba def ko it loolu moom xam gi farata la boo ko xamee ba noppi nag nga jëfe ko lu mënta ñàkk la te jaamu yàlla gu rëy la loola boroom xam-xam yi tënk nañ ci aw yoon woo xam ne sëriñ bi leeral na ko ci masaay ko jinaan te moo tënk yoonu tarbiyaam dafa wax ne su suma dawa u jumlatan huwa rujoo ila ilahina taala bil xushuu maanaam defar nit defaru xol yar ak ruux yar ak ruux boo ko bëggee yoon wa ca yoon wu gàtt wa rek maanaam tënk yoon wa mooy nga dellu ci yàlla ragal ko ragal gu ma sëkk ndax yàlla moo bind bakkan bi boole kook yow jox kàttanal ko mu fit ba ba tax mu fitnaal la kon boo delloo ci yàlla ma ko sàkkoon dooleel ko jëbbal ko sa bopp sàkk mu xettali la yàlla dana dox sa diggante ak moom mu ngi mel ne mu am xaj rek ab xaj bu soxor bu daw wutsi la song la la gën a gaaw ci lu lay musal mooy nga dellu ca boroom xaj ba laxasu ca moom mu teqale la ak moom kon dellu ci yàlla dellu gu mat sëkk ragal ko ba ragal ko bu mat sëkk rek loolu moom ku ko defrek danga daldi sa ruux dana sell sab xol dana lab sa bakkan da ko not moo tax mu ne su ma dawaa ujumel wal xuso ila ilahina huwa rujo ila kama rujooka li rabbil kalbi yakunu awla min anaa darbi waaye mu gën koo leeral tudd ci ay tomb yoo xam ne moo lay gën a xamal nooy defe lii mu la wax <clears throat> mooy bi ci njëkk mooy dangay am sasu sasu jaamu yàlla dangay sas sa bopp da ngay yan sa bopp yan bu diis ci ay jaamu yàlla mooy nga taqoo li ñuy tudde wird al wirdul yawmi mooy sas sasu jaamu yàlla wooy bay bis bu ne nga xam ne du bokk ak safara tey jëmm yi nga war a def loolu la ñuy tuddee naafila ak nawaafil nawaafilul xayr yonent bi sallallahu alayhi nee na sama jaam duma defal lu ma gënal li ma farataal ci moom kon faratay ñëw jiitu dara mënu ko wecc waaye bu ñu ko defee ay farata ba noppi nag bëgg sama ngërëm tax mu sas boppam ay jaamu yàlla ngir sàkku sama ngërëm dana dem a dem a dem ba ma bëgg ko su ma ko bëggee maa maay doon déggam gi muy déggee gisam bi muy gisee loxoom yi muy jàppee tànkam yi muy doxee lu mu bëgg ma defal ko lu mu bañ lu mu ragal ma musal ko ca kon loolu mooy cosaanul wird te mooy sasu jaamu yàlla wooy sasoo bis bu set nga tegoo ko loolu ci yoon yi ñu jaar jumtukaay yi ñu jëfandikoo ci yar bakkan ci la bokk mooy bi xamli asqaalil ibaadaati ñaar mooy nga ànd ak sëriñ bu matub sëriñ mooy soxbatu ahlil xayri mooy mulaazamatul murshid ar rabbaani mooy jëmm ji sëriñ muhammadul maamun mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Fadou doon waxtaane fii nga ànd ak ku noonu nga taxoog moom mu tarbiya la mu nekk sa fajkat bi lay faj bi lay defar bi lay yar kooka sëñ bi tënkoon na ko aw meloom moom laa waxoon ci njalbeenug waxtaan wi moom lay sëñ Moodu Maamu doon waxtaane ci tombam bi mu doon waxtaane kon nga ànd ak ku mel noonu taqoog moom taqoog moom nekk ak moom di yendoo ko fanaan ak jaxasoo ab diir ab diir ba mel nam bëgg nga mel ko te muy melawoo dul tàggooti mu door laa yewi kon taqoog sëriñ bu matub sëriñ boobu mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy almujaahada mooy jihaar ak sabakan wa minhu sidqul mar'i fi lmujaahada bil juu'i liqtinaasi xayril faida ponki jihaar yi boroom xam-xam yi tasawuf yépp dëppoo mooy saxoo xiif xiif bu metti dëkke ko dëkke xiif bu metti dëkk ci xiif boo demee bay bëgg a dee mos tuuti ba leex ba ba ba ba xam ne jot nga sa bakkan mos tuuti ci ñam naan tuuti di ñàkk nelaw dëkk ci ñàkk nelaw boo demee ba mënta ñàkk bu la nelaw notee saa yu yëgee ne nelaw nga nga daal di ne bëreet jóg dëkkee noppi doo wax mukk lu dul loo war a wax la nga waroon di la nit ñi baaxoo wax fu ñu toll di wax wax ju baree bari nga wartee ko tudd yàlla yow zikrullaahi dëkkee wéet bañ a jaxasoog nit ñi ba ba ngay mel na nga war a mel ba sa bakkan ba ba ngay faju ba wér xam nga am fu nit di toll ci wéradi dañ koy téye ci fajukaay ba faj ko ba mu wér ñu doon koo bàyyi kon nit ki fi muy toll ci jàngoroy xol danañ koy téye ca fajukaay ba mooy dañ koy ber ca daara tarbiya ja mu ne fa ba ba muy wér bañ yewi ko mu door ba mu wér ba bañ génne ko ca fajukaay mu doog dem loolu mooy beru kon yooyu mooy ponki jihaar ji mu wax mooy xiif ak noppi ak dëkkee ñàkk nelaw ak dëkkee euh, euh, wéet kon loolu tam ci jumtukaay yi ñu jëfandikoo ci yar ruux ci la bokk bokk na ci di lekk lu lew li ngay lépp looy jëfandikoo mu nekk lu lew li ngay lekk li ngay naan li ngay sol barab bi ngay nekk lépp looy jëfandikoo ci say yitte mu nekk loo xam ne amee nga ko ci amin doon na lu yàlla digle ñu war koo am ñu war koo moom te nga amee ko ci amiin wañ santaane loolu mooy lu lew lu lew mooy lu loo xam ne yàlla digle na maye na ku ko war a mën a moom ku war lu war a mën a bokk ci moomeel ba noppi nga amee ko yow ci amin wu dagan amin ci yoon wa ñu ko war a amee loolu mooy alxalaal kon lekk lu lew dëkk ci lekk lu lew wa akluna min ak min atyabil xalaali la subhatin aw ribanaw iskaali ndax gaa yu baax dañu naan nit ki lu mu lekk lu na mel lay jëf booy lekk lu xaraam lu xaraam ngay jëf booy lekk lu ñu sib ci ay caaxaan euh, ngay nekk lu ñu sib ngay jëf euh, kon loo bëgg booy lekk lu dagan nag lu baax ngay def moo tax mooy yaa saaxi kul ma chita tafaal noo bëgg a melit da ngay ànd ak ku moo tax ñu waxoon ci ginnaaw ànd ak sëriñ bu matul sëriñ waaye mooy wa xaalilan man chita tax du shaklahu kon lekk lu leew boobu mooy bi ci toppaat bi ci mujjaat mooy nga nekk ci barab bu sell boo xam ne doo fa gis lu ñuy tere dee su fa dee su fa gis lu ñuy tere dee su ko fa wax dee su ko fa jëf mooy ci al biatu saaliha wa min dawaiha al firaaru min jamii mazinati zanbi li muhtadin mutia yaa salaamatun min hinda ma ahliha an taxul la dahra fi waadiha kon yii mooy ponk yi nga xam ne moom la sëriñ bi fekkoon gaa yu baax yi tënkoon ko ne ku yar ruux ci nga koy jaarale mu ñëw ànd ak ñoom ci woowu gisin daldi koy jëfe nag jëfe gam ko doon jëfe nag mooy mbir ma ca la feeñale gisiinam ci la feeñale maniinam ba aw aw ba amu am ba am aw yariin aw yariin woo xam ne mën nañu ko tuddee ak tarbiyatu ruuxiya inda Cheikh al Xadim loolu moo ñu yóbbu ci ponk bu mujj bi ci tomb bu mujj bi mooy li wuutale yarub sëriñ bi li ko ràññale ak yeneen yariñ li ni ba mu àndeek ñoom ca lee nga xam ne ñépp a ko bokk li jëkk ci li ko wuutale mooy moom aw gisiinam ci yar ruux ak nam ko jëfe daa matale mooy ak sumul mooy daa gis ne jëm nit kenn du ko xaaj fab yaram bi bàyyi roo gi mbaa nga fab ruu gi bàyyi yaram wi mbaa ngi jël bakkan bàyyi xel mbaa ngi jël xel bàyyi bakkan déedéet lépp ngay jël kon moom daa gis ne ku yar dangay yar léppi nit ki danga yar yaramam danga yar bakkanam danga yar xelam danga yar ruuxam ngir yar bakkanub nit ah, ngir yar jëmm ji yaramu nit ki ngir yar ko ci la jële jumtukaayu liggéey di liggéeyloo nit ki nga xam ne nit ki fañ ko yare dañ koy liggéeyloo loolu gaa yi xamuñu ko woon bañ gisee muy liggéeyloo nit ñi sax am na ñu ko doon teg ay baat naan lekk ñaqu gor dëgganut ndax dañoo jàpp ne moom liggéeyloo nit te doo ko fay moom ki nga moom ki nga yilif rek maanaam ku ñu moom daal mooy ab jaam rek lañ ko sañ a def waaye gor moom kenn sañu koo liggéeyloo loolu mooy firnde ne xamuñu ko woon kon xamuñu loolu waaye lañ fàtte woon a xam mooy ne ñaari mbir bu jëkk bi mooy ñaq wi da wi xaraama lekk mooy ñaq wi nga jël te neexut boroom waaye li la nit ki jox ci coobareem ak teeyu bakkanam dagan na ceew nga lekk ko moo tax lu mu la may baa mu sarax la ko baa mu jox la ko àddiya dalay lew ñaqama waaye lew na la ndax moo la ko jox ci coobareem léegi xidma te mooy liggéey boobu ki koy def da koy def ci coobareem ki mu koy defal moom lay neex mu defal ko ko kooko kooka mënantu ko maanaam néewu ko danga koy def ci sëñ tabañ moom moo koy def ci coobareem ngir lañ ko cay fàggul ci defaru aku yiw mu am ko kon liggéey boobu da koo def ngir yar yaram ngir tàggat yaram bi ba teqalikoo ak tayel tàggat ko it ba lim mënta ñàkk man lépp ngir ak dunduk àdduna mën a yéwén ba mën a def àdduna muy war waayam bu jëm alaaxira mu tàggat yaram ba mu man li mu war a man lépp ci xeeti jëf ay liggéey ay liggéey yu nit war a def tàggat ko ba mu sawar bañ a tayal bañ a bëgg noflaay bañ a bëgg lu yomb waaye tàggat ko ba mu man lépp lu mu war a man tàggat ko itam ba mu nangu lépp lu ko yàlla sant man koo def tàggat ko yaram wi tàggat googu muy tàggat yaram bi nag ci liggéey da ciy jaarewaale defaraale jikkoom dindi ci moom ak rëy ndax day liggéey mook moroomi mook mboolem nit ñëpp lay àndandoo di liggéey xam ne moom ñëpp a bu daa liggéey lu ñëppay àndandoo di liggéey kenn du xàmmee ki sëriñ bi jur ak ki buur bu jur ak ki baadool bi jur ak ki géer gi jur ak ki ñeeñu bi jur kenn du xàmmee kenn kenn ñëppay àndandoo di liggéey kon ak rëy day day dindi rëy di dindi gis ne yaa gën nit yaa gën keneen loolu lépp da koy dindi ci nit kon day yar jikkooy nit ki da ci yaraale jikkoy nit ki ci liggéey boobu loolu kon lu lu lu yees la lu mu indi ci wàllug yar kon yar yar yaram waaye yar bakkan day yar bakkan ci li ñépp juba woon mooy jihaadu nafsi waaye euh, su ko defee kon euh, loolu day xiifal ñi muy yar day daana leen xiifal dëkk ci xiif ak mar ak wéet ak noppi du ak saxoo tudd yàlla maanaam moom noppi sax noppi kese rek moom daa jàpp ne loolu du du taxul ñuy wax waaye day sax day tax nit day saxal nit ki ci muy tudd yàlla fu mu toll waaw bu nekkul di jëf rek na nekk di wax lu baax waaye bu mu noppi nii rek kese lu ma taw lu ma taw daal ca lay noppi ak wéet ak ñàkka nelaw loolu boole woon na ko ci ab yaram mooy not bakkan loolu itam kon ci yi mu def la ngir yar bakkan jumtukaayu yooyu ñu waxoon te ñépp juboo woon ci la jëfandikoo ci not bakkan waaye yar xel ci jàngal ko jàngal nit ki def ci moom xam-xam jàngal ko xam-xam waaye yar ko ci di xalaat fikr foo toll sa bët tege sa xel root loola xalaat ca mbir mooma ba dollikoo ca ak ngëm muy xalaat yar xel itam ci waa di ko waar waar nit ki kon jàngal nit ki ak waar ko ak yar tàggat ko ci di muy xalaat loolu lépp yar xel la loolu jëfandikoo na ko boo demee ci masaal ko jinaan tafakkur muy xalaat beral na ko fa ab bunt jàngal nit ki xalaat di ko wax na mu amee solo ak yoon wi muy jaar ba def ko ak ci lan la war a xalaat ak xalaat bi lan la koy jural loolu lépp ci yar xel la bokk jàngal nit ak tàggat ko ci xalaat ak di ko waar di ko yee di waxtaan moom di ko yee di ko laabiire waaye yar ruux ci jaamu yàlla ci ci sas ko yan ko yanub jaamu yàlla yan ko yanu jaamu yàlla bu diis boo xam ne da koy yanu te dootu ko yanniku ba mukk ba ba muy faatu waambul rabbaka xataa yaatiyakal yaqiin kon mën ngaa wax ne jumtukaay yi sëriñ bi jëfandikoo ci yar juróom benn la bi ci jëkk mooy jàngale yóbbaale na xalaat ak waaraate ak yar nit ki ci jaamu yàlla mooy sas ko sasu jaamu yàlla wu diis yan bu diis ci jaamu yàlla bu mu dul taqali ko bis bu set mu di ko def mooy at-tarbiyatu bil ibaada bi ci topp mooy e, not bakkan mooy at-tarbiyatu bil mujaahada bi ci topp mooy tarbiyatu bi mulaazamatil e, al qudwa mooy nit ki taqook nit ku mat ku ko mën a defar muy taqoog moom saa su nekk ak yar yar ko ci xidma tarbiyatu bil xidma mooy euh, mu dëkkee liggéey fu mu toll bu nekkul di jaamu yàlla nekkul di zikr mu nekk di liggéey waaw ci xidma waaye yar ko it ci muy sax ci barab boo xam ne dara lu naqar yàlla du fa nekk mooy al iqaamatu fi biatin saaliha kon at mulaazamatul murshid arrabbaani tarbiyatu bil ibaada mooy alwirdul yawmi a tarbiyatu bil bil xidma a tarbiyatu bil jihaad ak al iqaamatu fil biati saaliha juróom benn yi <coughs> mooy jumtuwaay yi nga xam ne sëriñ bi jëfandikoo na ko ci yar ba def yaram mu nekk yar bu matale boo xam doo jël genn wet bàyyi ga ca ga ca des kon loolu bokk na ci li ko ràññalee ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jël ak wet ñii dañuy jàngal nit ki rek ñii dañ koy saxal ci jox ko wird rek dégg ak yu mel noonu kon matale googu bokk na ci li ko ràññalee ña ko jiitu woon bi ci toppaat mooy Euh, bàyyi xel li mën a nekk bàyyi xel li mën a nekk tawar a nekk moom lay tudde alwaaqiya maanaam sëriñ bi dafay bàyyi xel ci ne ki muy yar nit la ku mel nangam ne ci barab sàngam di dund ci jamono sàngam kon aw yar yi ni nga koy yare war nga cee bàyyi xel moom ki mu doon ak fi mu ne ak jamono ji muy dund loolu da koy kon day sàmmoonteeg nit ku nekk da koy day jëflante moom ca na yàlla ca moom te loolu la ko yonent bi sallallahu alayhi santoon ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat waa aamil kulla shaxsin bi ma bi mooy muamalatu kulli shaxsin bi ma bi bihi kenn ku nekk mu jëflante ak yow ca la yell ci ci yow ci nanga mel ak fa nga ne ak sa jamono moo tax mboolem ñi mu yar ñépp solu leen ci menn medd jaaral leen ci wenn yoon kenn ku nekk daa am nu mu lay yare nu bokkut ak na muy yare sa moroom boo ñëwee ci alwirdul yow mi mooy sasu jaamu yàlla muy sas nit ku nekk par bis bis bu set am na ñoo xam ne ci alxuraan la leen di tënk seen wérd mooy alxuraan maanaam alxuraan rekk ca la ñuy yëngu di ko jàng di ko bind di ko jàngale loolaay séen liggéey defloowu leen leneen joxu leen wérd bayloowu leen gorloowu leen maanaam ba mu leen ba mu noppee ci la ñëpp bokk daal maanaam bañ génnee ci daara tarbiya ji daal ba nga xam lañ fay def moom ñëpp a ko bokk mu leen di yewee ku nekk nag mu war laa jox waruwaay woo xam ne doo ko wàcc ba ba ngay àgg ci sa boroom kenn ku nekk la mu lay jox du bokk ak la mu jox sa moroom am na ñoo xam ne alquran la leen di jox du leen jox leneen am ñoo xam ne wird wañ xamoon wirdu tarixa leen di jox wirdu tarixa bu bàyyi ko ci moom mbaa Cheikh Abdul Xaadir Jilaani mbaa Cheikh Ahmad Tijaani mbaa Cheikh Abul Hasan Asazali radiallahu taala anhum mu jox leen wird kenn ci ñooñu mu jox la wirdam tënk la ci charte yooyee nga yor ko mu ne sa warwaay wi ngay wi nga xam ne moom ngay war doo ko wàcc ba ma ngay wuy ci sa borom baa nga àgg ci moom kon am na ñoo xam ne wirdu leen jox ndax loolaa dëppoo ñoom am ñoo xam ne du leen jox wirdi du leen tënk ci jàng alxuraan lu dul la ca mënta ñàkk ndax alxuraan tam kenn du ko gàddaay waaye da leen di saxloo ci liggéey ak tudd yàlla alxidmatu wa zikrul kasiir du leen jox wird du leen jàngaloo alxuraan waaye zikar zikar ak liggéey bu sax dàkk ci la leen di tënk nga xam bu ñu jógee fa ñuy tarbiyewoo fu ñu toll seen làmmiñ day taxoo tudd yàlla nañ taxoo ba gën a yomb sax te gën a ëpp te te te làmb lépp muy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah fu ñu toll nañuy wax baat boobu rek saxoo ko fu mu fu ñu toll tey dëkkee liggéey liggéeyal jullit ñi waaw loolu am na ñoo xam foofu la leen tënk muy seen warwaay bi ñuy war ba ba ñuy àgg ci yàlla mbaa ñu wujj ko am ñoo xam ne ci jàng ay xasidaam la leen di tënk jàng alxuraan boole ko jàng ay xasiidaam jàng aslëf ci alxuraan waaye ëppal gën a baril jàng ay xasiidaam yi nga xam ne wéetal yàlla ci nekk ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tagg bi sallallahu alayhi nga xam ne ci loolu rek mooy seen waruwaay bi ñuy war di ci doxe ba ba ñuy àgg ci yàlla mbaa ñu mbaa ñu mbaa ñu wuy ji ko nga gis ne kon kenn ku nekk daa xool ki nga doon ak li nga man ak fi nga ne ak jamono ji nga say say say li la tënk ci jamono mu mu yan la yan bu méngoog loola loolu bokk na ci di ko wutaleeg ña ko jiitu woon nga xam ne ñu ci bari benn waruwaay lañu yor boo xam ne ku ñëw rek ñu dugal la ca nga war boo ko boo mënee nga war googa ak boo ko mënut kooku mooy ñaar ci li ko wëttale ñi ko jiitu woon ñett mooy xikma daa am xikma ci ni muy jëfandikoo li yi wax li yi jàng li yi bind ci téere yi bu ko dee jëfandikoo day am xikma da ci da ciy boole xikma mooy li ñuy tuddee li may tuddee al xikmatu fi tatbiqi al mabda al asil alxikmatu fi tatbiq al mabda al asil maanaam li ñépp jàppoon ne lu mënta ñàkk la bu koy jëfee da cay boole xel maanaam bu ñu nee lekk lu lew lu mënta ñàkk la mabdaun islamiyun suufiyun asil bu ñu ko waxee lekk lu lew xam nga ne bu ñu la saraxee nga lekk lew na la suñ la mayee nga jël lekk lew na la bu ñu la joxee hadiya nga jël lekk lew na la boo liggéeyee ba am lekk lew na la waaye moom ci biir lekk lew loolu bàyyiwu la ne la noo mën a fexe ba lekk lew lekkal la déedéet dana la kaay liggéey kaay nga liggéey kon uh, akulul xalaal boobu mabda bi bi ko bi mu ko jëfandikoo xidma la indi amal maanaam amal la indi amal mooy liggéey mooy kas bul xalaal yonent bi sallallahu alayhi nee na doomu aadama lekkut lu gën li mu ñaqal boppam yonent yàlla daawut ci ñaqu boppam la daa lekk maa akala ibnu aadama eh, atyaba eh, min amali yadihi wa kaana nabiyullaahi daawud yaakulu min min yadihi kon liggéey boobu nga xam ne lekk lu lew la bëgg ñu jëfe ko liggéey la defaloon ñu ko loolu xikma la maanaam daa xool anam nga gën a xereñ ci jëfe li ñu santaane mu indi yoon woowa boo ñëwee ci beru beru xam nga boo tëjoo ci sa néeg doo génn mukk fatu rek dëkk ci fatu kenn du la gis beru nga boo demee ci àll ba def sa mbaar mbaa nga dem ci sanu garab rek sax fa wala ci xun biir xunti ma dëkk fa beru nga waaye moom bi mu bëggee jëfandikoo beru googu daa ànd ak mbooloo ñu dem ci àll ba gor ko sanc fa ay barab boo xam ne lañ yittewoo lépp ci seen dund dafay am ci dëkkuwaay ci ay jaamukaay yàlla mooy ay jàkka ci ay jàngukaay mooy ay daara ci ay liggéeyukaay mu ay tool mu fab mu dem fa moom mi yare ak ña muy yar ñu war a beru mu beru fa ak ñoom nga xam ne beru nañ de ndax nekkuñ ci biir nit ñi waaye nag ah, beruwuñ beru goo xam ne gu ñàkk njariñ la ndax fañ nekk ah, ña nga fay def loo xam ne maa nga leen di jariñ ci seen diine di leen jariñ ci seen àdduna di jariñ mbooloo mi bàyyi ginnaaw di jariñ mbooloo mi ñu bàyyi ginnaaw kon loolu xikma la bi ci mujj nag ci ko wutaleeg ñi ko jiitu woon ci ci ni mu jëfe li li njàngale mi ñëpp bokk mooy rafet nu muy nose moom mbiram da koy teg ci ab nos maanaam nit ki dañ koy teg ci yoon euh, nosal ko yoon woowa nit ki bu ñëwee dañuy xool lan mooy li war ci moom ci jamono jii mu nekk mooy xukmul waqti xukmul waqti fa saadiqul muridi man yanqalib bi xukmi waqtihi ki nga xam ne daa toll ci jàng kenn du ko liggéeyloo ji dañ koy yóbbu mu jàng yi alquran bu dee ca la toll xam-xam bu dee ca la toll ki nga xam ne jàng na alquran jàng xam-xam waaye am nay waajur yu magee yu am kenn yoo xam ne amuñu ko leen yor bu dikkee jox ko bopp da ko naan demal nga yoral ma say waajur du ko téyeegun di ko tarbiye de da koy yabal mu yori ay waajuram ba noppee gis waajur door a dellusiwaat bu ñëwee nag mu door a ànd ak moom ci yoon wi nga xam ne moom la koy tegal bu ko defee nag day nos dëkkuwaay ba da koy nos ber dëkkuwaay bi ber fii jàngukaay bi ber fii euh, liggéeyukaay bi ber fii jaamukaayu yàlla bi fenn fu nekk mu wutal ko barab barab bu nekk mu sàkk ay waxtu yoo xam ne waxtu sàngam nañ fa def nangam waxtu sàngam ñu def nangam nga xam lépp da koy da koy nose bam ne nocc kon xosnu boobu bokk na ci li ko ràññalee ak ña ko jiitu woon bokk na ko li ko ràññale li ko jiitu woon mooy ña ko jiitoo ñu ci bari dañoo yitte yittewoo nit ki rek bàyyi xeet wi maanaam islaahul bi bàyyi mujtama bi donte mujtamaa bi sax moo fard mu ne su leen teqale dañuy yar nit ki rek ba mu juboo boroomam ba mu juboo boroom ak ruuxam sell mu jege boroomam ñi cees nag ñoom càkk ñu xam def mbooloo moom jóge woon moom moom génn na ci ñoom ñu génn ci moom moom nag day bàyyi day nit ki du ko teqaleeg mbooloo mi du ko teqaleeg mbooloo mi su ko waree ber ngir ngir yar ko itam ci biir yar boobee ma ngi cay bàyyi yoole xel ñam bàyyi ginnaaw ci ci fi mu nekk nii ndax ma ngi koy liggéeyloo loo xam day jariñ mbooloo ma ca ma ñëwut waaye ma ngay defar ay jikkoom ba bu delloo xam nu muy àndeek ñam bàyyi jafe-jafe ya nekk ca mbooloo ma ci xeebaateeg euh, séddale nit ñi ay xaaj ñii naan yéen lii ngeen yéen lii ngeen yéen lii ngeen mooy ni séddale woon rek xeetu Sénégal ñenn ñu nekk kuréel bu ne ñu am lu ñu leen tuddee ba mu yar nit ña ma ngay bàyyi xel ci bu ñu fa jógee loola deñ ci xeet wi mooy ya dañ rëy ak ñenn ñi ñenn ñu nekk jàpp ne ñoo gën seen moroom ñii di xeebaate ñii di nangu ñu xeeb leen loolu lépp mu di ko bàyyi waale xel ci kii bi bàyyi waale xel luy yokk koom xeet wi ak luy defar seenu seeni jëflante loolu lépp da koy bàyyi waale xel ci biir ab yaram di bàyyi waale xel dunduk àdduna ki muy yar ni muy bàyyi waale xel dunduk àllaaxiraam kon loolu lépp ah, bokk na ci di nga xam ne ràññale na kook ñi nga xam ne eh, ñoo ko jiitu woon néewaan daal nga gis koo xam ne lii ma wax lépp daje ne ci moom ni mu dajee ci moom mii kon loolu mooy ràññale yarinu sëñ bi akub euh, akub euh, yaram bu ci wàllu ruux bu ko defee nag ngir tëj ñu wax ne sëriñ bi daal dafa xereñ ndax lii mu doon def lépp ci ñaari jumtukaay ci ñaari yoon yu mag la ko jaaree moo yoonu tarbiya yoonu jàngale ak yar jàngale ak yar la jël jëfandikoo ko ba lijjanti ci li mu bëggoon a lijjanti lépp waaw ci la defare nit ki ba mu baax ci la defare xeet bi ba mu baax loolu daf ñu jàngal nekkoon jàngale ak yar lu am solo la loo xam ne nii ah, ku bëgg a defar nit ba mu baax baa nga bëggee defar aw xeet ba mu baax jaarale na ko jaar ci jàngale ak yar ndax daa mel ni lépp li ñuy defaree nit ci jàngale lay dellu ak ci yar diine ji boo ko jëloon pas-pas day yar nit jaamu yàlla yi ñuy def jaamu yàlla gu ne am na yar bu muy def ci nit ki ak lu muy defar ci moom atte yi ñuy atte yoon li ñuy tuddee yoon di ko tëral muy ay at ay yoon yu ñuy atte nit ñi euh, yoon yooyu yëpp yar nit lañ ci jublu Euh, bu ko defee kon lépp loo xam ne lu ñu tër la rek ngir dundug nit man ñoo wax ne mi ngi ci diine wala ci àdduna ci yar lay delluwaat kon jàngale ak yar daal lu am solo la lu mat a bàyyiwaat xel euh, euh, kon maa ngi tënk fii kàddu gi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala ci waxtaan wu am solo yi day mel ne. Eh, koor gi feeñu ci feeñu ci lool góor góorlu nga bu baax a baax ci eh, waxtaan wi ni nga ko ni nga ko ni nga ko tëree eh, kon kawe na kawe na njort day mel ni ñi doon topp waxtaan wi amee nañ ci lu kawe njort ndax fi nga ko teg wutal nga ko ay cëslaay te mooy wax lii ñuy bëgg a wax fan la nekk ci xam-xamul islaam maam boo koy wër ci biir lislaam foo ko cay fekk ndax ci njëlbéen dafa laytaayale waxtaan wi ci leeral ne tomb bi ñuy waxtaane man ngeen koo déggee ci anam yu bari manoon nañ koo tëggee nu bari bañ koo tëggee rek yarub yarug ruux ci ne ko Sëñ Tuubaa defee wala ni mu ko jëmmalee waaye manoon ngeen dégg ñu tuddee ko wird wala ñu tuddee ko al iraada te mooy li Sëñ Tuubaa woote ñi nam ma egg fa seen boroom jëm ci jëm ñi ñu nam ma jëm ci yàlla wax itam boo koy wër ci lislaam ci niñ ko tëralee borom xam-xam niñ ko tëralee foo koy fekk wax na lislaam ay ay ay ponk la ponk yoo xamante ne sëñ bi jàngaloon na ko ca ca ca ca ca ca ca ca tasawudu sixaar waxaloon nañu ne ñu boo leen ni bëggee xam ngëm yàlla day sukkan day day day day séddale ko ci ay ay xaaj wax ñu ne ñett la mooy imaan ak islaam ak ihsaan ñetteelu tomb boobu te mooy ihsaan mooy li ñu tuddee tasawuf itam ñaari baat la yuy woo jenn jëmm rek wax ne kon waxtaan wi ñu doon waxtaanee ci foofu la tënku de mooy waxtaanu tasawuf la wax nañu itam atte bi liñ doon liñ doon waxtaanee nii atte bi lan la mooy farata la ci kenn ku nekk mu xam ca la ñàkk ci moom loolu wutal na ko itam cëslaay leeral na ne sëriñ bu mag bi moo toxalee ci al imaamul jàngal ñu ko ci masaalikul jinaan ji nga xamante ne leeral na ci biir waxtaan wi ne mooy delluwaay bi gën a mag ci tasawuf ci ñun fi ñu sukkandiku loolu leeral na ko wax ne wax na foofa ne xam li mënta ñàkk ci tasawuf ci jullit bu nekk rawatina ab murit faratay jëmm la mooy mel ne lekk ngeen mën nañoo tubb sexal la eh, nga sàq mi waaye wanaasu moom sàq mi wanaasu nit ku nekk moo koy defal boppam li mënta ñàkk ci li nit ki mënta ñàkk ci jëmmam ci wàllu tasawuf leeral na atte bi wax na ne faratay jëmm la mooy nit ki nit ku nekk daa war a yittewoo loolu loola fi mu yóbbu mooy ñu soññee ci wàll googu ndax waxtaan dafa leer naññ ba nga xam ne dellu siwaat ci naan wax na tomb bi wax na tomb bi mën na cee jur ak lëntal waaye foofu daa mat a taxaw mooy atte boobu noonu nga xam ne junj ne ko ci biir mooy day mel na ñi ëpp ci ñun léegi seen yitte nekkatul wut ku leen yóbbu ci àlla seen yitte nekkatul egg ay mu man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksihin fasal loolu sëñ bi wax na ko leeral ko wax bayit yu bari yoo xamante ne day wane lëkkaloo gu tomb bii ñu doon waxtaanee am lëkkaloo ak tomb bu ñu fi waxtaanee woon te mooy bi sëñ Moodu Maamunum sëñ Fallu doon waxtaanee te mooy ab yarekat bu bu mën a yare nan lañ koy xamee ak yan mooy ay melokaanam day mel na nag yarekat yi mën nañ fee bari lool waaye ñi bëgg a yaroog ñi bëgg defaru day mel ne ñoom ñoo bëriwul maanaam nit ñi xamuñ liñ bëgg xamuñ li ñu wut te day mel ne loolu moom ñun ci la ñun moo war a gën a nekk suñu suñu li ñu gën a yitteel ci waxtaan wi mooy xam ne lii warteef la kenn ku nekk jéem a egg moom jéem a defar bakkanam jéem a yar ruuxam waaye loola mu xam mu jéem a xam nan la koy defee mooy wut kum àndal ca yoon woowa te am waajtaay wi nga xamante ne laaj na ko ngir mu soobu yoon woowa mu jéem mu jéem ko ndax day mel ne àdduna moo ñu fëkk ñun ñëpp day mel ne xéewal yee teraanga yeeg taw fexi daa mëdd li gën a ëpp ci ñun suñu xel ak suñuy xalaatin sax ba jéem a defaru ak egg moom day mel ne bokkatu ci ñu yitte am egg ak defaru day mel ne bokkatu ci ñu yitte waaye loolu teewul ba léegi ni am nañu ci góorgóorlu di ci di ci di ci di di di ci di ci jëf seen kem kàttan ni ko Sëriñ Aafiya leeralee ci biir waxtaan wi leeral na ne njàg Sëriñ Tuubaa ni mu doon yaree ci wàllu tasawuf doon tasawuf lu fi yàgg lool la lu ko jiitu moom waaye bi mu ñëwee am na ci méthode am mooy manhajam boo xamante ne la na kook ñeneen ñi ko jiitu woon leeral na ne sëñ bi moom ponk yi mu jàppee na ci lañ war a yaree ak ña ko jiitu woon ponk yañ jàpp am na wuute loolu nag gisiinam wu gisiinam la wu bees ci biir yariinu lislaam te jaarle ko ci tasawuf loola day mel ne lu am solo la loo xamante ne euh, Sëñ Afiye leeral na ko ci biir waxtaan wi te mooy ponk yooyu nga xamante ne leeral na ko mooy ni mu séddalee ne noonu lañu war a fexee ba boole yar yarub yaram mooy tàggat gi ñu tàggat mu nit ki ak ni ñu defaree ruuxam ba ñaar yépp àndandoo di fonctionner di jë di di di dox benn bañ a bañ a not moroom ji wala bu amee buy not sax mu nekk ruuxam waaye mu bañ a nekk yaramam ndax loolu day mel lu ci lu lu lu am solo la loo xamante ne leeral na ko muy lu mu génnee ci biir ab jàngat boo xamante ne jàngat na ko ci ni sëñ bi jëmmale yarub ruux mu wax ne sëñ bi itam ci ponk yi mu doon yare da ngay gis ne day mel ne daa day boole tàggat yaram te jaarale ko ci alxidma mooy di di jëfloo nit ki muy muy muy jëf ci yaramam waaye mu ànd ak taal am xelam leeral ko te loola mu ko doon jaarale ci méthode jàngal ko ba mu dañu réer xamal ko am beneen ponk ci nit ki boo xamante itam faw mu accompagner loolu mu ànd ak loolu mooy bakkanam bakkanam yitam mu yar ko ni mu yaree bakkanam mooy néewal ak lekkam ak yóbbu ko ci barab boo xamante ne day tax mu bàyyi àdduna mi nga xamante ne mooy xëcc bakkanam di ko di ko di ko ruurloo wala di ko sóob ci yoon woo xamante ne dana tax mu fàtte la taxoon ñuy tàggat yaramam di ko jëfloo la taxoon ñu jàngal ko ba mu xam yey gàllankoor mu mën koo jëfe loola bakkan la faaw yóbbu ko ci barab boo xamante ne fa lañ koy tàggatee ba mu mu mucc ca yi nga xamante ne mooy gàllankoor yooya loolu moo taxoon mu sañ ci mu sañ ci Touba tubaab bi yóbbu gi ñu ko yóbbuwoon njaareem ngir loolu bañ a am ci la bokkoon bokk na ci ci la taxoon yóbbu ko fa moo yóbbu ko foo xamante ne beru googu du fa du mën a am ñeenteel bi mooy ruux ak jëmmam nan la koy tàggatee te loola mooy sàkk ay nit ñoo xamante ne da leen boole moom bi mu demee ba nga xam ne mën ak féexam mayatu ko mu mën a wommat nit ñu yóbbu leen mu sàkk ay nit tàggat leen ñooña di wommate di di di yare di yóbbu te loolu mos fee jóg mos fee jug ba fi sëñ bi jugee itam ñi ko wuutu gannaawam ginnaaw 1927 ba fii ñu toll nit ñaa ngi defaree mbenn misaal rek doy na ci sëñ Saaliwu Mbàkke mu baax mii xel kom tàggat na fa ay junniy junniy nit ñoo xamante ne ci anam yii la leen tàggat yar leen boo demee Thiès da nga fekk mu defar fa sëñ Saaliwu Ture muy defaree loolu dama ciy joxe misaal ci ku jàpp ne ba fi sëñ Tuubaa jugee ba léegi kenn yarut kenn defarewut kooka ku juum la ku nekk ci njuumte loo xamante ne lu wér-wér la kon na nit ñi gën a am pëstéef ci jéem a defaroo waaye li doon defaree ak li yare mosu fee jóg te du fi jóg ba faw ndax sëñ bi da ko wutal ay ceeslaay yu wóor wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu suba incha allahu taala dinañ am waxtaan woo xamante ne day mel ne day lëkkaloo ak waxtaan wi ñu doon waxtaanee tey ndax niñ ko waxee jataay yi dañ koo séddale ay jataay yoo xamante ne ay bind la ak ay ubbee ak ay waxtaan suba danañ jël beneen bind boo xamante ne ci tasawuf lañ koy jàngale ni si ñaa fi waxee léegi ne téere bu mag boobu di masaalikul jinaan mooy téere bi nga xam ne mooy delluwaay bi gën a mag ci tasawuf sëñ bi bàyyil ñu ko fi téere boobu ci la ñuy jukki ab bind boo xamante ne suba moom la ñu war a jàngale incha allah ñu ci ànd ak almufattish sëriñ Muntaqa Jatara ngeen xam ko loolu muy waxtaan muy muy jàngale bind bi nga xamante ne mooy buntu bi sëñ bi di jàngale lenn ci jàngoro yi nga xamante ne jàngoroy xol la ak yenn ci yi nga xamante ne ay caay-caay la yoo xamante ne mën naa sóob melokaanu nit ki ak ay jikkoom ba teekoo mel melokaan wi nga xamante ne mooy melokaanu mutasawwif alkaamil ni sëñ bi bëgg am murit mel ko kon suba bind boobu la ñu war a jàngale ci masaalikul jinaan euh, sëriñ Muntaqa Jatara moom lañ ci àndal incha allah bu juróomi waxtu tegalee fanweeri simili fii ci jumaa ji ñu ci ànd ak MKTV ak mbooleem organes yi nga xamante ne dañuy gunge daayira bi ci di fexe bay tasaare jotaay xam-xam yu am solo yi nga xamante ne ñu ngi koy defee fii ci jumaa ji wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ba suba ak jàmm insha allah yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan